ayo di jumtukaay bii tax ngeen mën di woote Sénégal ni mu leen neexee ci njëg yu xéewale moo leen di may seen émission Modou Modou ci Touba Argentine TV waa asalaamaaleykum mbokk euh, mën naa ne àdduna bépp di ñu seetaan tey nag ñuy dalal gan gu am solo gan goo xamante ne nii mën nañ ne euh, xale la ci at mais góor yàlla la ci jëmm Euh, kooku mooy kan kooku mooy defe naa kii toog doomu làmbaay làmbaay bu mag bi nga xam ne tabaar fakkaar la macha allah muy sëñ Yankhoba Gueye sëñ Yankhoba nag buñ koy wax dañ koy wax ci arxuraan dañ koy wax ci nitu yàlla dañ koy wax ci diine ñu bëgg xam tey kan mooy sëñ ba muy dund fii ci Argentine euh, di liggéey lu bëri nag fii ci Argentine ci diine ji di ci jàpp lu baree baree bare doon fi jëwriñu Sëriñ Tuubaa muy lu rëy a rëy a rëy asalaamaaleykum ah, sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal di la laaj yow la kan. di wasalaatu wasalaam ala xayri anbiyaa wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi wa sallam tasliman ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa eh, di ñaan suñu borom mu jéggal nu mboolem suñuy rëcc-rëcc tey jéggalu mboolem jullit yëpp fu fi waaye mën a nekk tey dégg suñu kàddu bu loolu jàllee itam. ñoo ngi leen di fay ab nuyoo ci mbokk yi ñëw ci daara ji tey di soxna ndey yaayu daara ji xam ne sëñ bi ko tuddee eh, ak sëñ góor a TV bi mu àndal ak sëñ Allé ak ñi fi teew ñëpp rek ñoo ngi leen di siyaare bu baax te di leen sant. waa jërëjëf sëñ Yankhoba Gueye ñuy wax ne tey Touba TV lañ àndal euh, sëñ góor a jiite ko. ñuy wax na sëñ ba dañoo bëggoon xam tey yow fan nga ganee àdduna ak foo jàngee alxuraan ak nan nga def ba ñëw fii doon fi jëwriñu sëriñ Touba. Euh, soxna Ndeye euh, ñu fas yéene tontu ci laaj yi nga xam ne moo tax nga ñëw ci daara ji tey pour laaj na ko euh, nun nag noo ngi gane àdduna dëkk bu ñuy wax Mekhay Lambaay digganteem ak altu ndàngal ma di toll ci juróom ñaari kilomètre juróom benn kilomètre foofu lañ gënee àdduna ci dëkk bu ñu wax mi xëy làmbaay ñu bëggoon xam ba nga fa ganee àdduna kan moo la jàngal alxuraan ak ku la daral arxuraan ak lu tax tey nga ñëw fii ci Argentine doon jëwriñu sëriñ Touba ndax doon jëwriñu Serigne Touba lu rëy la li may wax rek suñu maam jooju nga xam ne mooy borom sëriñ bu saawaan baawaan bi bawul kenn waa tey ñuy laaj tey yow sa sëñ ba foo jàngee alxuraan laa bëgg a xam ba pare. waaw suñ boroom dogal na bi ñu ganee àdduna rek euh, am ak ràññee sëñ Mourtala Mbacke góor yàlla yàlla dogalan bi mu nekkee ci di taxawal ay jàngu yaakaar naa jàngu bi mu njëkk a taxawal ci Touba muy ndaam su ma juumul bu dul ngaay mexey mexey làmbaay moo ci topp ci 1978 la ko taxawal bi mu koy taxawal nag booba suñu at xam naa taxu ko bari ndax yaakaar naa ne 78 année bi ñu gënee àdduna boo ko xoolee juróomi at la su ma juumul daal ban fay dem xàmmeekuñu sax nag aw araf ñu ñun suñu waajur jël na dugal na ci jànguwaay boobee euh, yaakaar naa ci ci ñaareel ba at bi sax lañ doo commencé ràññee ay araf commencé faa dal dafa jàng ba yàlla dogal 89 euh, lañ fa am diplôme mu arab saabanu yàlla dogal nu yemale sunu jàng foofu nag euh, fas yéene liggéey yi waaye taxut nag ñu bàyyi. continuer di def ijtihaad di farlu ci wàllu xam-xam ba am na ci barab yu ñu jot a jaar di jàng muy góor gu ñuy wax Baye njaay te sëñ Mor Mbaye Cissé yoroon ko xam ne defal na ko ñëpp xam bi ñu ñëwee saw dañ daan dem ci moom di tëralu téere xam yi ba mën naa ne téere yu bari sëñ bi bind muy tasawudu sixaar tasawudu subaan mu nawiru sudóor jawharu nafis mu layinu sudóor téere yooyu yëpp daal ci moom laa ko jànge yàlla dogal na yeneen téere yi ci des nga xam ne bi may yeggalee foofu bay war a dem dëkk bu ñuy wax Abidjan di fa dafa liggéey eh, ci xam ne sama xam-xam xam egg naa foo xam ne xëy ne war na maa mën a farlu sama bopp ba mën a xam dara ci laa am kuñ ma wax koo xam ne sëñ Abdourahman moom sëñ Abdou Khoudous moo ko jàngal doon góoram ku ñuy wax Moustapha Diop ca Yamoussoukro ma jóge foofu daw ay kilomètres yu bari bari xam da ngay xëy daw ba ngoon jot. ma déggoon na am na kese du ñu tafsir ci masaalikul jinaan ak muwaahibul xuddoos yàlla dogal ma jóge ci dëkk boobu ci Abidjan dem ba Yamoussoukro jël fa kaset yooyu yàlla dogal na ci weeru koor wi ci weeru koor la woon du fàtte mukk ci laa jàngal sama bopp téere yooyu wax masaalikul jinaan continué nag ak lu mel ni ay xuddoos yooyu yëpp Abidjan laa ko jànge kon xam-xam moom nit ki même bu ñu ko yóbbut mu laxaset boo xamee boppam xam mooy kan rek war naa mën a am ak farlu boppam ba lu mu war a xam ci lu baax wala xam-xam rek mu xam ko ndax xam-xam moom minal mahdi ilal lahdi la eh, te it sëñ bi dañ cee soññ te ku ne boo xamee sa bopp rek xam ne eh, xam-xam lu am solo la ci nit ndax nit ki bu xamul dara rek mun a jëm ci jublu ci yàlla mun a jëm fenn nit te sëñ bi daa wax ne yaa ayyuha subbaanu in xiftum xajal fa lu mën ala amal yéen waxambaane yi bu nga ragalee gàcce ëllëg na ngeen jiital xam-xam doog a liggéey nun nag ba nu xamee loolu tam dara suñu bopp rek lemeen lu ñu fi xamaat noo ko xamal suñu bopp ci suñuy gëstu ak def ittihaad farlu ba lu ñu war a xam ci diine xamal ko suñ bopp ndax dafa am loo xam ne fardu ay na la ci nit maanaam kenn du ko defal te loolu boo mu sag farlu doo ko mën a xam te yàlla dogal na bi nu jàngee ba am diplôme 89 ci lañu suñu waajur jox ndigal mën nañoo bàyyi mu yóbbu nu ci benn dëkk boo xam ne suñu maam ji jox sëñ Babacar Ndiaye Thiergane ci ndigal ku tedd ki moo ko jox ndigal mu sànc ko ca penku Touba digganteem ak Touba su ma jumut juróom-ñeenti kilomètre la fa lañ jëkk a dem liggéey fa mennum at ci at moom ci la sëñ Abdou Lahad wàccu liggéey muy 89 ci lañ doog a jóge foofu nag wéyal suñuy liggéey di yëngutu ci sawu daal xam naa dañuy yemandi foofu rek ndax dafa dafa toll foo xam ne daal lépp mënu si ko leeral noonu waaye xanaa ñu yemani foofu rek soxla ndey. waaw defe naa lii moom leer na kon sëñ Yankhoba bëggee defe naa su ma juumul ñuy wax sang bi toog lépp ciy liggéeyam rek. liggéey ginnaaw yàlla suñu borom rek sëñ bu mag bi la ko liggéeyal ndax lu mu am rek sëriñ Touba suñu maam jooju la ko liggéeyal moog waajuram bu sell bu tedd ba moom sëñ Yankoba waajuram bi nga xamante ni moo ko jël dalal ko arxuraan waa sëñ Yankoba léegi ñuy dellu ci laaj yi ci deuxième partie bi nga xam ne moom lañ la bëgg a laaj mooy tey jii Argentine gi nga nekk <coughs> ñëw fi nag doon jëwrinu sëriñ Touba ñu bëggoon xam tey nan nga def ba doon fi jëwrinu sëriñ Touba ak nan nga dundee sa mbooloo mi ndax doon jëwriñu Serigne Touba du lu ndaw loolu laa doon bëgg ci deuxième partie boobu may dugg tey ak sëñ ba xam naa sëñ ba wax nañu fi mu ay jaar-jaaram ak fi mu jàngee léegi noo def tey ci Argentine ndax ay sëtu tuuba Touba ngi fi sang yaa ngi fi nga doon fi tey jëwriñu Serigne Touba ñu bëgg a xam sëñ ba moomu tey nu mu def ba doon jëwrinu sëriñ Touba. Eh, waaw soo doon tey. dañu am mbégte bu baax ci tontu ci laaj yi nga xam ne yaa ngi koy laaj waaw nun dey bi yàlla dogalee ñu xam ne àdduna ku fi nekk war ngaa def xarakaat def ittihaad farlu ci liggéey ndax sëñ Mourou Moustapha dafa waxoon ne bi muy woote jumaa ji na liggéey na ngeen dem liggéey ndax ku la mënal sañal la te ku la sañal xajamal sa diine ku liggéey ba mënal sa bopp nag kenn xajamal sa diine loolu moo na indi fii ci Argentine bi ñu ñëwee ci Argentine tam yàlla dogal na toog nañ fi ay at yoo xam ne mbokki taalibe yu bari duñu xam di wëlërante ak ñun waaye taxut nag ñu doon dem ci mbooloo yi waaw toog nañ fi ñaar at yoo xam ne daal daanaka daaw ñu dem sax nag ci jataayu mbooloo yi ndax it loolu suñu doxin la woon waaye bés daal ci dëkk bi ñu nekkoon fii ci Argentine muy fële fu ñuy wax Lanús suñu boroom dogal eh, at moomu ci la mbokki taal bi doon def ci centre islamique ba benn genn màggal goog sëñ Fall su ma jumul bis boobu daal ma jàng genn benn xasida yàlla dogal eh, xasida googu du ma ko fàtte mukk muy jaalibatul muraxib ma ko jàngee ba pare mel ni daal am naa yëg-yëg boo xam ne dama daal di daanu ci róom bi mel ni dañ may wax ne ma daal teewal ci mbooloo yi ngir kër sëñ Tuubaa mënu fee ñàkk loolu nag moo ma togg ba bis boobu bi may ñëw Eh, def naa fa jëfe murit joo xam ne yëg-yëg boobu moo tax ma dugg ci mboolem Argentine ginnaaw yàlla te loolu uma sahid na illa bi ma alim na sahadatu suur minal kabaayir wax lu du dëgg ci bàkkaar yi gën a màgg la bokk te duñ seere mukk lu du dëgg yëg-yëg boobu moo tax ñu duggati ci mbooloo waaye eh, sàllaaw daanaka néewaloon nañ suñu jotaay loolu ci mbiri mbooloo waaye dafa mel ni daal yëg-yëg bu am la boo xam ne bi ñu jàngee pare ba mu def nu xaal joo xam ne daal dafa mel ni dañ doon daal mënut a ñàkk loolu mënut a ñàkk loolu moo ma dugal ci mbooloom Argentine ba ma ci duggee keroog ca bis boobu tam ca laa jëkk woote kër sëñ Touba laaj ci kan mooy jëw nañ ci ñu wax ma ko ma daal di dagg samay sas daal di génne li ma joxoon li ma yoroon jox ko ba mu jeexat daal ne képp ku fi nekk tey jëwriñ soo mënee 2000 peesu nga def ko soo mënee 1000 peesu nga def ko foofu daal fa la yëfee tàmbalee taxut sax nag ku ñuy wax sëñ Abdou Cissé moo fi nekkoon doon jëwriñ ji mu def ku baax koo xam ne ku am yaar ku am taalibe am Pastef ma ànd ko moom keroog bi moo koy yëkk jébbal addiya ji nga xam ne maa ko jëkk a jaayant fi wax ko dama daal di raam ba ci kanamam daal dina ko sëñ Abdou maa ko tàmbale ci liggéey sëñ Tuubaa bi nga xam ne woote naa ko bis nekk tey tàbb ci seen biir waaw loolu daal xam naa mën nañ ko leeral ci loolu daal moom ci la yi fi ah ba yàlla dogal nag ñuy dem di dem ñuy teew ci mbokku taalibe yi ba ñoom xëy na seenu doxin ñu rafetlu ko ah daal di may sant ne daal buñ seen yaay yaay jiite mbooloo mi may leen nag Eh, ñun daal yéen ji nekk ci ñun ak liy dox ci suñu yaram muy pas-pas bi nu am ci liggéeyal ku tedd gi soxlawut ñu jiitu mën nañoo nekk seen wet rek di jàppale waaye mbokk taal bi ñeneen ci mbokk taal bi dina ci soññ lu mat ay bis boo xam ne saa su damay joxe ngànt daal suñu yaaw bu dimbal na la ndax wax dëgg nit ñi am nañ ci yow soofeel cofeel am nañ ci yow kersa bu ñu sañoon daal yaay jiite mbooloo mi ah ba mu demee ba ñàkk ñàkk ci am pexey te bëgguñu dara yàqoo ci suñuy loxo ci laa leen ni kon dinaa leen ko yorandil dinaa leen ko yorandil ba ca kanam waaye loolu mooy dox ba ba suñu jonne tey jii loolu waral ñu ne ci mbooloo mi tey ñun ñu def ñu nga xam ne ba nu juddoo ba léegi liggéeyal sëñ bi rek ak dox ci lislaam la ñu yare ci loolu lañ xam ndax suñuy waajur ci loolu lañ leen fekk fekk nañ bu benn du ñaare fekk nañ loo xam ne suñu waajur def na ko muy jaay aw jiwam ba mu jeex tàkk jox ko ab sëriñam fekk naa tam lu ma leer loo xam ne jóge na penku bagage yi mu woon penku yëpp mu jox ko ab sëriñam ab sëriñ ñëw fa mu jox ko lépp kon ñoom ñun ci loolu lañ juddu suñ maam it mag ñi nettali wax nañ ne yenoon na gaal goo xam ne mi ngi ko yenoo bawol ba ceen jolof yóbbul ko sëñ mag bi ci ay bagage koo xam ne moo jur suñu waajur muy suñu mut saxeer géey kon nun foofu rek fi lañ mën a mënuñoo ne feneen mënuñoo def leneen lu du topp seeni tànk rek nag ndax nit ku ne war ngaa am euh, koo xam ne moom ngay roy aw doxalinam saf la boo yàlla dox dogalee nga am ay waajur yoo xam ne ci Pastef nga leen xam ah yow nga war a am pas-pasu wax ne man de fasuma yéenee mel ni sama baay waaye dama fas yéene raw sama waajur ndax nit ki saa boo bëggee gën amaana nga gën waaye soo boo bëggee mel ni sa waajur amaana doo amaana doo mel man ngaa mel ni moom mooy laa nga yes ko waaye soo boo amee dogu ci ne sama waajur fi mu teg tànk fas naa ko yéene romb suñ borom dam doon maye tey la gën a maye ndax sëñ wax na ko ci masaali ko ji naan fala taxasus fadl rabbin xat ala di si taxaddumin faqat fa tajaxlaa bu leen fab ngëneel yàlla yi rek jox ko ñu jiitu woon ndax bariwaa na ku jiitu ku mujj ñëw ñëw ëppale ko ay mbir te ku duggañ tëbaloon sëñ bi mi ngi fi mosu fee jóg yoon wi kay moo jafe bu ci moo jafe waaye lu baax tey la fi gën a ne ku am pas bu raw say waajur boo góor góor lu mën nga leen raw ndax yàlla li muy joxe amu ci xëj ak seen ku ko jëm ci yoon rek yàlla mën na la ko jox kon daal xam naa soxna Ndeye laaj boobu moom xam naa foofu rek lañ ci mën yemandi ndax mën nañ ci wax lu gën a xóot loolu waaye dañuy bañ rek xëy na guddal jërëjëf. waaw ba léegi maa ngi ak sama euh, sëñ ba Guèye yéen a ngi yéen ñi ñuy seetaan di ñu déglu yéen dégg ngeen deuxième partie baa ngoog troisième partie bi nag ma bëgg ñëwaat ci laaj bi mooy tey sa projet boobu nga xamante ne wax nga ko léegi daayira bi nga njëkk a dem daanu aalu ndax ku ne xam na loolu ci murit yëg bi nga am ci sëñ Bamba sa soppe ba sa xarit ba góor yàlla bu mag boobu ba nga xamante ne tey jii euh, yaa ngi doon kër sëriñ Touba la njëkk ndax adduna bi dans le foo dem am na kër sëriñ Touba ndax foo dem rek am na kër sëriñ Touba ma bëgg a xam tey sa projet yow ci kër sëriñ Touba boobu fan nga tollu tey ci kër sëriñ tuubaa boobu sa projet fan ndax kër gi taxaw na am taxawagul sa projet ci kër sëriñ. waaw soxna Ndeye laaj boobu de xam naa dañ ci amoon yéene joo xam ne duñ wax duñ ci waxati lu su jëf rek joo xam ne dañuy xëy teg ci bët ba taxoon na ma ne mbokkal taalibe rek jërëtu sax ñuy wax ci mbiru kër gi di ci wax dara ci média eh, nañ bàyyi bu jëf ji sotti waaye nañ ko waxee woon wane ne kër sëñ bi pour mu am suñ bakkan lañ ci teg suñu àll mësu koo fekkee suñu jot mësu koo fekkee waxtu wu ne muy guddi muy suba muy ngoon liñ fi xooli ci ay kër bare na trop ba jamono jii ma di wax ak yow un hectare boo xam ne cent mètres carré la mooy cent mètres largo cent mètres muy cent mètres carré yoo xam ne waroon nañ ñu ko ma demoon xoole ko ba yóbbu fa mbokk taalibe yu bari yàlla dogal kër gi am ay ay wax yu ci am ci wax chinois yi nekk ci ñu dëkk dëkkuwaay yu nekk foofu ñu dëkke noonu wax ne boroom kër gi da ko jaayeen kër gi mu jox mu dugaleen ci dara te borom kër gi gaañu ne mu nekk ab lijjanti ak wax ñu daal da koy bàyyi noonu fii ma toll di wax yow itam am na yeneen kër yoo xam ne dimanche bi li passé xooli woon nañ ko waaw ba ñoo ngi ci am yaakaar waaw am na daal ay barab yoo xam ne ñoo ngi koy xool daal incha am na barab yoo xam ne ñoo ngi di ko xool waxtu ne daal jàpp nañ ne bu soobee suñu borom dana sotti incha allah bi waaw mbokk téléspectateur yi leen di seetaan sant ak ngërëm ñeel na kii di sëñ Yankhoba Gueye defe naa ci mbiru kër Serigne Touba bi tey leer na fa mu dalee fa mu ganee àdduna leer na fa mu dalee daara it leer na defe naa looloo nekkoon suñ première partie ak sëñ Yankhoba Gueye ñu koy sant di ko gërëm ñu ñëw nag di ñëw ci deuxième partie bi nga xam ne moom la ñu war a laaj tey sang bi toog muy sëñ Yankhoba Gueye jërëjëf. allo allo ayo moo leen doon may seen émission Modou Modou ci Touba Argentine TV ayo jumtukaay jokkoo la bu leen jagleel yéen moodu moodu ngir fu ngeen mën di toll di mën di déggante ak waa Sénégal ci anam yu yomb te xéewale jëfandikoo leen ayo application bi ngay télécharger ci sa téléphone jot ci suñu liggéeykat yi ñu installé leen ko ayo jàppandi na ci Argentine boo ci soxla wol Abdourahmane numéro téléphone am 112 747 22 21 wala nga woo Gora Seck ci 223 305 01 27 wala La Plata nga woo Ndiaga wala Ousseynou Fall 221 50 37 301 yéen ñi fare Cordoba te bëgg a jëfandikoo application bii di ayo wol son yu bu baax numéro téléphone am 351 801 23 95 yéen moodu moodu yi fare Brésil it fàttewuñu leen woo leen Omar Ndaw ci 119 869 482 96 ak application bii di ayo da ngay dégg jàmm di déggante ak say mbokk ci jàmm. Ayo. mbégte dikk